yi di si dalami dëgg la boo xam ne président Maodo Malick Mbaye moo ko moom tey ku gis mbooloo mii nii ni mu néewee di nañu xam ne fii président Maodo Malick Mbaye moo ko moom ku gaan esprit gëm sa bopp aussi ñun ñoo ko moom di lancer appel waa si dalami am na loo xam ne ñun duñ ko nangu ñun seen si dalami dañ fi ñëw nag pacifiquement tey bi ñu gisee mbooloo mi xam nañ ne waa si dalami ñu ngi renouveler seen engagement ci président Maodo Malick Bougane di la ñaanal yéene bi nga xam ne am na ko ci askan bi yàlla na ko kattan ci ëpp kontaan